ordre jëm ci wàll bu nekkee ci eh, ay eh, troubam euh, par rapport li jëm ci wàll woowu noo jàngatee discours bi nga xamante ne ne peut-être mën nañ jàpp ne c'est un commentaire euh, bu ministre bi def parce que dañu am un recul démocratique Fatima depuis le code consensuel mm-hmm. de 92 élection dañ ko mës a waxtaanee au Sénégal toujours da ngay gis les acteurs dinañu réunir seet yan modalité ak yan condition lañ war a demee foofu lañu nekkee di def ay miim ak ci suñu code électoral ba yegg si fi nga xam ne fii la ñu toll. je pense que bu ñu demee bay def des élections anticipées euh, li gënoon mooy ñu fexe ba opposition bi wala acteurs yi ko sekk ku nekk ñu boole la ci li nga xam ne moo di processus bi mais maintenant le ministre de l'intérieur su fekkee ñoom. kale nañ date yi ñu war def yëpp maanaam ci dépôt bi ci ni ñuy prononcé kii yi nga xam ne mooy résultat yi wala fi nga xamante ne fa la ñuy publier liste yeeg yooyu noonu yëpp ñoom def nañ ba pare mais ñii di opposition ak ñi nga xam ne ñoo war a participer ñoom dafa mel ni nit ku la invité këram ba pare ne la lii laa togg et je pense que nit bu lay invité au minimum dina ne la lan mooy sa plat ma toggal la ko bu ko defee yow nga gën a mën a am engouement ci ñëw bi mais mënuma la invité sama kër ba pare ma xool li ma gën a bëgg man ma teg ko foog ne yow loolu mën na doon sa plat alors que mën na bañ a doon sa plat ñoom aussi ils ont raison d'avoir boudé maintenant bu tat bi nga xamante ne ministre bi def na ko mooy le fait que mu ne ñii peut-être défaite bi ñu amoon en mars moom moo leen jàpp ba tey moom ku war a organiser war a afficher neutralité warul tenir sa commentaire parce que loolu day wane ne moom benn camp la féete et je pense que le leader du PASTEF moo waxoon ni ñoom seen régime bokkuñu bëgguñu état de grace parce que loolu c'est pour les faiblards kon ñoom tey jii opposition su braqué woo di participer ci débat public bi warul tax ñu ne opposition bi nañ leen jël bett leen indi fi élection yi fixer date yi parce que pour un délai boo xamante ne c'est quinze jours pour que nit ñi war a def coalition war a mën ay liste pour man c'est un délai court te tey opposition bi man damay ragal ci nit ñuy bindee liste yi ñu am ci problème suñu demee ba déposer au conseil constitutionnel ñu am ñuñ ci kale parce que ñëpp xam nañ ne y a des comme le parrainage yu ñu war a ci confection des listes loolu indi woon na fi problème en deux mille vingt deux mm-hmm. léegi nag erreur yu mel noonu ci liste yi nga xam ne ci département yi la aussi amoon nañ ci ay problème parce que am na ci yoo xamante ne au dernier moment buñ ko bëggee def ci va bi dina compliqué d'ailleurs l'État xam na ko sax ba lu ñu wax dañu ne au niveau des palais de justice nañu fexe ba bu mu am benn répit nañ ko ubbi bu ko defee nit ñi mën a am li nga xam ne mooy casier judiciaire parce que yaakaar naa Kader day déposé <laughs> <laughs> buy wuti casier judiciaire du am problème <laughs> donc. liste na liste nationale la ñu ah liste nationale liste jeex na ndax ñu am sax député nag. Ah. doo def ñuy neex. léegi nag loolu noonu ñoom xam nañ ne délai bi dafa court pour nit ñi mën a liggéey liggéey bi ci war pour mën nag un pouvoir bu ñëw en mars wax dëgg yàlla am 54 pour cent waroon nañoo teel a yëgal nit ñi ne ñun dañuy dem élection le 17 novembre gaaw leen ngeen liggéey seen liste yi su ko defee ñoom ñu xam ne am nañ assurance ñu xam ne ñoom pare nañ. Modou Fall yaa ngi naan pouvoir bi ñoo parewul non non pare nañ de ndax ñoom depuis juillet xamoon nañ ne dinañ dem élection 17 novembre opposition bi nag suñ ne parewul kenn du leen ci mere parce que ay alliance lañ bëgg def ndax fi mu ne nii c'est l'heure des grands ensembles mhm. kenn mënul dem en solo ne yow mën nga gagner une élection c'est pas possible Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw ñaata parti ñoo ko soutenir Diomaye président combien de parti la des centaines Hmm? Macky Sall bi muy ñëw en 2012 benn Bokk Yaakaar donc fii nii grands ensembles ñooy gagné d'ailleurs Yewwi ñaata parti la woon donc fii kenn mënu fee dem en solo ne di nga gagné wala nga am majorité grands ensembles ñoo mën a gañee une élection au Sénégal loolu la données yi donné loolu la données yi wane. léegi nag li woor mooy processus bi ndax dina ànd ak transparence man loolu dañuy dem ba ci kanam pour mu leer mais li ma gisagum mooy doole état mo jooru ci kaw classe politique bi. parce que état mi war a organiser moo ñëw rek ci délai bu gàtt mu ne dinaa dem élection indi ay kiyam ay ay datam te date yooyu sax am na. ñu ne am na de violation yu ci am. Mhm. parce que waruñu woon fixer yenn yi nga xamante ne def nañ ko ci convocation corps électoral bi les primo votants plus de quatre cent mille nee nañ duñ bokk. Mhm. parce que duñu am temps wu. mën leen a révision ci fichier bi. Mhm. duñu am révision mais yooyu ay modalité yu ñu war war waxtaanee la entre acteurs politiques. parrainage bi dañ ko defoon pour filtre léegi nag suñu demee ba am 47 listes ñu ne dañuy def parrainage léegi avec euh, ce parrainage bi amul est-ce que duñ dem ci 94 listes on sait jamais et yu mel noonu pour parer ko da doon baax ñu def bulletin unique te mm. yooyu yëpp il faut des concertations acteur yi déggoo ci su ko defee bu ëllëgee lu am ci élection yi kenn du ne lii dañ koo njuñ njaaj mais je pense que coup de force moom lañ bëgg a def parce que opposition bi ak ñi nara a participer dañuy subir mais ñoom agiruñ parce que lépp dañ leen ko bëgg a imposer et je pense que dans une démocratie euh, participation lañ ciy laaj maanaam une démocratie participative mais lii pour man c'est un recule te Pastef lépp lu jëm ci injustice ñoom ñoo war a taxaw nekk les boucliers pour lu koy dind mm-hmm. parce que ñoom seen marche vers le pouvoir am na lu bëri luñ ci si biir am na lu bëri luñ ci dund ci wàllu injustice ñoom ñoo waroon ñëw nekk les premiers à les réparer mais jeune pense pas que ñoom waroon nañ ñëw di continuer di di exercer injustice yi ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu sekkal classe politique bi en 2022 mhm. bi ñu jëlee seen liste euh, kii yi nu mu tuddati titulaires yi mais ñoom fu ne lañ ko lañ ko coow ne lii c'est pas normal coup de force la waa léegi lu mel noonu nga dund ko yow war ngaa mën a dox ci lu ñuy waxee ne lii injustice la opposition bi jël nga leen ci bett mais aussi ñëw nga imposer des règles yoo xam ne waxtaanee woo ko pour man il faut que la la société civile aussi ñoom it ñu jóg ci parce que ñoom it chaque fois su élection amee dañuy taxaw ne ñoom dañuy fexe ba démocratie bi ñu gën ko dundal mais cette fois-ci dafa mel ni ñoom it dañoo seetaan alors que c'est le pouvoir qui déroule l'opposition mu ngi nekk fii quand même tant bien que mal au moins ñoom ñuy organiser wu di def ay coalition mais mënoon nañu banque seen loxo ne ñun ñii kat on nous a pris de court parce que lépp dañ ko waroon waxtaanee te kenn waxtaaneewu ko ak ñun mais euh, politique chaise vide moom loolu mosul baax donc ils n'ont qu'à participer à ces élections et puis ku ci nekk rek chance bi nga xamante ne moom nga am les populations sont là pour trancher et puis pour pour juger am na solo euh, gis nañ également déclaration de presse bi nga xamante ne Forum des justiciables daal dina koy génne di attirer attention également euh, ci euh, waay politique yi parti politique yeeg yooyu jëm ci wàllu forclusion ak rejet comme yi nga xamante ne yaa ngi koy annoncé tout à l'heure voilà donc mu ngi leen ci mu ngi leen ci sonjaat moom Boubacar di leen ci soññaat bu baax a baax. wala dara effectivement jëm ci dépôt wu liste complète ci respect des euh, mentions obligatoires prévues aux articles L 149 ak yu nu mel li ca topp donc lu jëm ci wàllu dépôt également ak euh, délai yi ñu moytandiku ko donc c'est un communiqué boo xamante ne moom itam daal dina ko génnee jëm rek ci élection yi ñu dëgmal ba tey dañuy descendi ci élection yi. Mm-hmm. communiqué bi baax na trop di ko félicité nag. Mm-hmm. courage la. Mm-hmm. waaye na wax ak grand bi parce que mooy relève bi mu ngi accusé assumé ñu génn dajale ana aar suñu élection li Ndeye Fatou wax mooy dëgg. y a des questions yoo ñoom ñoo taxoon porté ko. génn fi def fi ay marche ana professeur Babacar Gaye bi ñu ko joxee assises yi ba léegi. de la justice yooyu nga bi ñu ñibbee dugal nañ ko ci turaal yi dafa waxu ci ci élection yi. mu njaay keroog jël na courage bi candee la faal fii lañ taxawoon amul luñ ko waxul ba wàccee ko mais candee bi mu piloté. débat yi orientation yi. parti mhm. par consensus. Mhm. ñoo ne kenn la na continuer waxtaan bi. Mhm. tey pour la première fois ministre de l' intérieur ñëw. première yegg si salaamaaleykum maaleykum salaam wane boppam donc Thiendella Fall ñu ngi koy jaajëfal Sénégal dañuy fi yàq nit régime bu bees bi day yàq ndaanaan